aywa aaudu billahi min alshaytan arrajim bismi llahi arrahmani arrahim walsalatu walsalaam ala man ursila rahmatan lilaalamin bashiran wa naziran wa daa'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira ixwata al iman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yàlla na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi dellu siwaat ci suñu dars siira ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala tey ñu ngi fas yéene jël ñetti tomb ci kàttanu borom bi bi ci njëkk mooy wafaatu abi talibin wa khadija xam ngeen ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam ci dundam yàlla denc loo woon na ko soxna suñ naan khadija radiyallahu anha wa ardaha khadija moomu bis bi nga xamante ne daf cee génn àdduna am na nu ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam dundee waaye njëkk mooy wafaatu abi talibin génn àdduna góor googu ñu naan abi talib nga xam ne moo yaroon yonent bi nekk baayam baay taxam nekki magi baayam aaroon ko làqoon ko fatoon ko boole woon ko ci biir njabootam ba yàlla subhaanahu wa taala def góor googu génn àdduna am na nu ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam dundee looloo tax tey sunu dars bi tomb bi ci njëkk mooy wafaatu abi talibin wa xadija mooy génnuk àdduna abi talib ak xadija mu ne xam ngeen ne xadija bintu xuwaylid wa aba talibin tuufiya comme ni ngeen ko yàggee xam yàggee ko dégg mooy Khadija ak Aba Talib bokk nañu ànd faatu fii amin waahid ci benn at kii taxawoon taxawaayu baay kii taxawoon taxawaayu way jur bu jigéen taxawaayu yaay donte ne soxna la ndax Khadija alayhi alayhi salaam wala radiyallahu anha wa ardaha taxawaa na ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam bépp taxaw bépp taxawaay bu nit di yaakaar jigéen ju baax taxaw na ko ci wetu borom këram rek Khadija matale na loolu bépp taxawaay bu yaay di taxaw ci wetu doomam rek Khadija matale na loolu waaye Abu Talib kilifa bépp taxawaay bu muy taxaw njabootam ci nu ngeen ko mën a dégg rek abu taalib taxaw na taxawaay bu mel noonu mbokk yi lool moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñaar ñi seen faatu rëy ci moom ba mu tuddee at ma amul huzn atum naqar atum njàqare yonent bi alayhi salaatu wasalaam dund na at moomu ay metit ay coono ay jafe-jafe loolu moo tax mu tuddee at moomu atum njàqare waaye fatataabaat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam al masaib mbokk julit yi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam yemul ci at moomu rek dundu jafe-jafe yeeg tiis yeeg nattu yeeg naqar yi waaye musiba yi dafa toppante ci kawam fa tataabaat ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam almasaib musiba yi tegaloo ci kaw yonent mu génn dem taif ndax coono gu ko waa màkka sonal taif li taxoon mu dem fa mooy jàppoon ne waa kër nijaayam ñoo fa nekk ay mbokkam a fa nekk danañ ko jàppale danañ ko taxaw ndeke mbokk yi ñoo ñoo gën a yées ñu jàpp yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam duma ko duma yu métti jóor koy xeer ba yaram bi naaj ginnaaw ba mu naqarloo génnu àdduna Khadija te Khadija taxawoon ci wetam di ko dimbali di jàppale diine ji di ko dimbali Abu Taalib taxawoon ci wetam di ko dimbali Yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñàkk ñaar ñooñu defoon ne bu demee Taayif xelam dina dal ñu jóor koy xeer duma ko ba yaram bi naaj ah mu dellu siwaan màkk wa kaana zalika qabla al hijra bi salaasa sinin loolu nag amoon na balaa yonent bi di gàddaay digganteem ak gàddaay ñetti at la woon loolu ba mu xewee bada isla badu islaamul ansaar ñaareelu tomb bi mbokk yi mooy tàmbaleeg ngëm yàlla xeet boobu giir googu ñu naan ansaar ñan ñooy ansaar al ansaaru qawmun yaskunuuna al madina ansaar ay nit lañ woon yoo xam ne ñu ngi dëkkoon madinatul munawwara boobu nag jamono jooju tuddagul madina mi ngi tuddoon Yathriba dëkk ba la ko formé ñaari xeet yooyu tudd ansaar ñaari xeet ñoo leen formé benn xeet baa ngi tudd al aws beneen xeet bi mu ngi tudd xazraj soo boolee al aws wal xazraj ñoom ñooy waa ansaar waaye ca dëkk ba ñoom waa ansaar te mooy awsoo xasraj dañ faa dëkkaale woon ak ay yahuud ci dëkkaale gu doy waar dëkkaale xulu ak xeex dëkkaale wuute dëkkaale gu neexul noonool gu kenn xamul moom la aws ak xasraj te mooy waa ansaar dëkke woon ak yahudi yooyu ca biir madinatul munawwar waaye yahudi yi comme ni ngeen ko xamee ñoom daanañu dig waa ansaar ay duma daanañu dig waa ansaar ak rey daanañu dig waa ansaar ak toroxal naan leen yonent bi di yàlla di yónni mu jëntalu jamono ci ñun lay bokk bis bu ñëwee ba feeñ yéen waa ansaar moom bu yeboo ngeen xam ne seen toroxtaange taxaw na lan moo tax yahudi doon wax loolu mooy ñoom dañoo tàmm yàlla buy yónni yonent ab yahud la daan doon ndax li ëpp ci yonent yépp ay yahud lañ ba ñu gisee loolu ñu jàng ci seeni téere dina am yonent buy ñëw mujjantalu jamono ñu jàpp ci ñoom lay bokk comme ñoom ñoo ëpp ay yonent ci xeet wi ah comme ñu ngi doon dig nag aws ak xasraj ay duma ak rey dem nañ sax ba yenn saay naan leen dalañ leen rey reyu aad ak samuud ni yàlla reye woon aad ak samuud rey gu metti googu danañ leen reye noonu waaye mbokk julit yi yàlla dogal ci benn saison yi ci benn xew-xew yi nga xam ne moo daan xew ca Makka xam ngeen yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dañul di gaaral diineem képp ku mu xam ne bu la woowee nga wuyi si dana dem sa kër bépp mbooloo mu bees bu mu gis ñu rot si Makka dana ñëw wax ak ñoom délégation bu ñu gis bu mu gis moom yonent yàlla bi dana ñëw wax ak yéen pour ngeen nangu lislaam ba benn bis ci xew-xew yooyu di xew màkk yonent bi yëg ne biir màkkakat benn délégation bu bàyyi ko Medina ngi fi bu bokk ci waa Xasraj ak waa Aws yonent bi génn dem dogaale leen gaaral leen lislaam ba mu tàmbalee wax ak ñoom rek di leen gaaral lislaam ñoom ñu comprendre ñoom waa Madine ndax lan yàgg nañoo dégg wax ju mel noonu ci yahudi Madina ya kon lii du mbetteel ci ñoom ndax yàgg nañoo dégg yahud yi naa leen am na yonent buy ñëw mujjantalu jamono cey bu ñëwee yéen waa Aws ak Xasraj am ngeen problème ah tey nag waa Aws ak Xasraj daje nañu ak yonantu boobu ñu daal di comprendre ne kii la yahud yi doon wax ñu daal di nangu diine ji déglu yonant bi yonant bi gaaral leen diine ñu dugg ci ñu daal di dellu ci seeni gox ak seeni kër bàyyiwuñu bàyyiwuñu ñoom waa Medine lu dul kër gu nekk ci biir Medina lislaam dugg na fa aa kër gu nekk ci biir Medine turu yonent ba sallallahu alayhi wa sallam egsi na fa ñu ngi ko fay lawti lawtee mbokk yi ñetteelu tomb ci dars bi mooy bay at bay atu al aqba al ula mooy daje ba jaayante bu njëkk ba daje boobu nekk daje bu njëkk ci jaayante bu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daje ak waa aws ak waa xasraj di jaayanteeg ñoom te mooy waa madinatul munawwara loolu ma nga am ca at ma ca topp ca saison yi nga xam ne ca jamono yooyu nga xam ne xew-xew yaa ngi xew ci mag fukki góor ak ñaar bàyyi ko madinatul munawwar ñëw dugg màkk ñu daal di jàkkaarloog yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca place boobu ñu naan al aqaba fa baayauhu ala bayati nisaa'i ñu jaayanteeg moom ñoom góor ñooñu comme ni seen soxna yi doon jaayanteeg ñoom lii nag xew na xew-xew boo xam ne boobu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam gàddaayagul jaayante gi waa ansaar jaayanteeg yonent bi xam ngeen ne fukki góor la ak ñaar yoo xam ne génnoon nañ Madina ñëw di aj si yonent bi àll waaye déggoon nañ turu yonent bi balaa ñuy ñëw loolu moo tax bi ñu ñëwee rek yonent bi yëg ne sangi Medina ñoo ñëw yonent bi génn dajeeg ñoom ca place boobu daal di jaayanteeg ñoom fa lamma insarafu ba ñu delloo ca seen dëkk baasa maahum rasulullah yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wassalaam yónni na kenn ci ay ndawam mu ànd ak ñoom waa Médine pour jàngali leen alquranul karim jàngal leen lenn li jota rot ci diine ana kan moo doon ambassadeuru yonent bi bu yonent yàlla muhammad njëkk a yónni mu war a génn makka dem toogali ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca Medine mbokk yi waa joojule am taraanga bu rëy bii am mbir mu màgg mi mooy nekk ndawalu yonent bi ndax nekk nekk ndawalu yonent bi mbokk yi joyul taraanga mbokk yi ndax nekk ndawalu yonent bi doyul daraja mbokk yi ndax nekk ndawal yonent bi am na lu ko gën a màgg ci kaw suuf kon waa ji làq na taraanga yu rëy rëy rëy te mooy la nekk ndawal yonent bi yonent bi jël ko jiital ko ci mbooloo ne ko demal demal ca Medine boo demee nga jàngaleel ma fa diine ji kan moo amoon taraanga boobu mooy Musab ibnu umairin radiyallahu anhu wa ardaahu yonent bi digal na ko wa amarahu an yuqri'ahum alquran ne ko demal nga jàngal leen alquran wa yuallimuhum alislaam nga jàngal leen lislaam wa kaana yusalli bihim doon na leen jiite alquran la leen doon jàngal ak islaam bu julli jotee mu jiite leen lii mooy lislaam lii mooy diine yàlla mooy jàng alquran jàng njàngale lislaam su jaamu yàlla jotee nga jaamu yàlla waaye xool leen diine ji tey ni ci pëcc xoo amee tey toll nañ ci diine foo xam ne am na ñoo xam ne du ñu julli ci lislaam lañ bokk am na ñoo xam duñ jàng alxuraan ci lislaam lañ bokk am na ñoo xam ne lislaam xamuñu ci dara ci lislaam lañ bokk te gis ngeen yonent bi mu yónnee Musab lan la ko wax jàngal leen alxuraan nga jàngal leen lislaam bu julli jotee nga jiite leen kon mbokk yi ci kàttanu borom bi subhaanahu wa taala lii insha allah moo doon darsu tey mu nekkoon ñetti tomb faatu Khadija ak Abu Talib ak njëlbeenu dugg waa ansaar ci lislaam ak jaayante ba jaayante bu njëkk boobu yonenti jaayante woon ak fukki góor ñak ñaar ñi jiite woon ansaar yonenti bi booleeg ñoom Musab ibnu Umayr ne leen jàngal Qur'an jàngal leen lislaam bu julli jotee mu jiite leen lii moo doon darsu tey ñu ñaan buur yàlla subhaanahu wa taala mu nangul nu ko nangul leen bu amee ay njuumte maa ngi koy jégglu sama boroom assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu